mbokk Samagal TV mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di wax ne ñu ngi ci neuvième édition alet fii ci Touba waaye nag ma ñëw nag fii ci bergerie Damlu taxaw ak euh, Mor sama waay cher naa la. ah ñoo ngi leen di ziar bu baax waa Samagal TV ah Cissé ñoo ngi lay ziar bu baax a baax a baax a baax waaw. Ah. gëj a gisee depuis Seb ba defe naa. waaw Seb lañ gëjoon a gisee waaw macha allah. ak jàmm ba ñu ngi sant ba alhamdulilah. ah Bési Dame Lo ñëw fii ci Touba exposé. Euh, fan ngeen toll kii mooy kan. Euh, kii mooy euh, waa bergerie Dame Lo ñu ngi nuyu waa alet bu baax di leen sant bu baax a baax a baax nag. waaw ndax ñoom femelle adulte yi. daam lañ ko parrainé. waaw mooy parrain bi. moo tax ñu ñëw exposé fii ci Touba. di leen sant bu baax nag bu baax wax dëgg yàlla. kii nag mooy 100 pour cent. waaw 100 pour cent moom doomu Samba Lawbe la Samba Lawbe doomu euh, Touareg la Touareg doomu magistrat la waaw Samba Lawbe Touareg moo ko jur ak Nixa waaw bu dee côté yaayam boo xam ne dañoo jël doomu morsul bu jigéen morsul doom bu jigéen lañ jël muy Nene Galle ko ci magistrat mu jur femelle jël femelle bi teg ko ci euh, Samba Lawbe mu jur ko looloo tax ñu tuddee ko 100 pour cent ah, yaayam doomu magistrat la. papaam sëtu magistrat la ndax papaam doomu euh, doomu doomu magistrat moo ko jur waaw. Samba Lawbe mooy kan. Samba Lawbe moom doomu Touare rek la yaay ja nekk doomu ah, Mixa. Samba Lawbe ci kii mi ngi julloo juddoo woon si Selili. waaw Samba Lawbe mi ngi léegi ci kuñ naan Omar Gueye. waaw rakku àlla. moo ko yor léegi waaw. ku xam euh, bergerie Dame Lo xam ko ci patience xam ko ci euh, Boy Talla xam ko ci dafa naan jolof jolof moo daan woon. Euh, kan moom nga daan. Boy Talla. Boy Talla. non après fois set bi. Boy Bawol. Boy Bawol Boy Bawol waaw. Boy Bawol ah. waaw. ngeen ñëwaat tey ci beneen maam muy 100 pour cent. chaque jour ñu leen gis ngeen liggéey ci auteur LCS mu nekk maalo yoo xam ne daal chaque fois rek dañu wane seen bopp. loolu liggéey seen maam. waaw ñun xam nga liggéey élevage yaru élevage laadum bi chaque jour amélioration la. Uh-huh. waa chaque jour loo gis ne luy amélioré gétt gi la rek. da ngay fexe boo ci jotee euh, mu amélioré xar yi. comme élevage du taxaw moom. foo tool rek dellu wut luy amélioré waa waaw loolu la ci lañ nekk bergerie Dame Mbodj. tey moom ba mu am ñaata mois ngeen ko indi. kii bi muy ñëw ci ñun mi nga am 11 mois. waa fi mu nii mi nga am vingt quatre mois net. waaw 24 mois la am. waaw net mi ngi ci 2 ans am fi mu toll nii waaw. est-ce que am na fay doom. waaw am na fay doom. bu dee fii nag benn doomam rek lañ fi indaale mooy mbote bu ndaw bi. mooy xale bës. waaw mooy mbote bu ndaw bu jigéen eh, bi waaw. bu weex taal bi bu moom mooy doomam. ban famille la ko doomu jant bi la. jant bi doomu booy taala la waaw nekk noonu. noir doomu jant bi la waaw. waaw bi doomu booy taala la. Ah, famille ci ginnaaw. bi ci ginnaaw moom doomu kamontaawun la. doomu ado la. kamontaawun jur ak benn famille bu ñu naan gaydel. ok moo jur famille boobu waaw gaydel moom moo jur femelle be mo tok ci or blanc. Ah, or blanc euh, bi juróom. wa set bi euh, ak rep. rep rek waaw. mo defone hauteur 106.2 point 2 yi aussi. moo ko euh, femelle be ño bok nday ak bay wa wa mais ñom seen famille dañoo bëgg waxtal la. Ah, wa dañuy waaw waaw kaar kaar dafa mëne a car car kaar sax da ngay japp ni doomam la. waaw waaw ci weexaay ci corne yek yépp da koy def wax deug yalla wa mais nak ki ma gëna neex ci gër gi laaj muy añal bi. Ah, law be kookoy lawbe. waaw ah. doomu niinoo la ak eh, doomu niinoo la ak gaydel. non dañ ko juddule kii moo ko or ñoo bokk benn yaay. kan doomu booy taalo la. boo xam yaay waaw mi kër ga. mais kon nag kër ga war naa fa ñëw de. yaay ji César la ak Algor non da ñëw. xam nga ñëw. biñ tase nañ. tase nañ keroog man la da nga ñëw. waaw waaw kon da ngay ñëw. danañ programme ci biir semaine instant bi waa sama gaal dañoo namm bergerie Dame Lo. non da nga ñëw laa wax balaa yàgg bala ñoo dem rep incha allah di nga ñëw. incha allah waaw. kon kon bi tamit ñu ngi lancé waale daam lañ mooy parrain bi mooy parrain rep bi waaw di wax ñëpp rek xelu élevage yëpp ku ci mën a ñëw rek ku jàppandi rek mën ngaa ñëw Samaga TV xaar leen émission waxtaan bu amul solo ak bergerie Dame parce que dañu war a wane production bu bees ba fa nekk parce que Dame Lo ku ne xam ne day jël maal production doy waar génn ko indi leneen kon production patience baa nga fa nii non surtout booy taala bi euh, doom yaa nga fa am na ay doom yu yu extraordinaire yu fa nekk. jeune mâle bi nag bi moo ci des. jeune mâle bi moom it doomu niinoo la encore. doomu niinoo la waaw. waaw moom doomu niinoo di setu kaar kaar. moom mooy alburi. alburu mbër laa ko tuddee. <laughs> Ah, eh, waaw moo moo eh, exposition bi rafet na. merci merci comme d'habitude rek. Euh, bergerie euh, Dame Lo moom. macha allah bergerie Dame Lo moom liggéey bi dañuy. xam nga dafa nekk liggéey boo xam ni. du desewul ci kenn kese. Ah, eh waaw équipe la boo xam ni ñëpp ci lu ñuy def dañ koy waxtaane waa du Mor a ko jiite wala Daama ko jiite wala Bamba ko jiite. waaw di sant ñëpp nag ñi nekk ci bergerie bi. dañu lim rek ndax.